نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi mu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dorti waan xewal ci kaw yonente boobu ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon si ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni waxtaanee dund saxaaba yonente bi la min al ahamiyati bi makaan ndax nit ki fu mu mën a toll ci ngëm yàlla day yëg ni saxaaba yi ñoo ko gënoon a gëm yàlla lu mu bari bari ay jaamu yàlla te mu sell tegam am na ca saxaaba yaa ko ko ëppale woon ay nit lañu woon yoo xam ni xallaqu dunya wa xaafun fitana dañoo fate woon àddina waaye ngir tiit fitna du leen dab ci seen diina wala seen wàllu àddina ba xañ leen àjjana ba nga xam ne moom la suñu borom di jaay ñu gën yàlla ci seen jaamu yàlla yi ñooñu kat inna fi xasasihim la ibra laqad kaana fi xasasihim la ibra nekk li seen dund fàttali ko da cee nekk ak waaw mboolem xeeti doomu aadama yi nag amul benn góor buy taxaw ci kaw suuf amul benn jigéen buy taxaw ci kaw suuf bu gëm yàlla lu dul buñ la gaaralee dundu saxaaba yi rek nga mën caa niit sa bopp loolu moom yàlla def na ko ñu alquran mel bu ko ab julit bàyyi koo ci adduna bi rek boo yegsee gis ci sa bopp ndax yaa taxaw mu wàcc melokaan woowu laay jox saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu yare woon saxaaba yi amul benn nit buy ñëw taxaw ci kanamu saxaaba yi lu dul da ngay gis sa bopp su ko defee boo nekkoon kuy góorgóorlu góorgóorlu bi day gën a doon lekk soo nekkoon ku sàggan da ngay daal di yokk ak loo am lu mu bari bari bu matoon téeméer xamal ni am na ci saxaaba yi ñu dundoon ba am téeméer ak ñaar fukk ak lu ko topp waaye teewul ay góor yu dëgër lañ woon doon julli guddi di woor gàtt nga di jihaad fi sabilillah ngir bëgg aljana joojee kon yooyu su fekkee nit ki gis na ko kat daf koy nekk ak sonn ak góorgóorlu nga xam ngeen ni ñett ni kat comme ni ma koy waxee dafa bokk ci ataalib yi gën a dal ngir waar doomu aadama ci alquran lam nettalee te yonent yàlla yu baaxee ci seen xisab loola bala nettali yu dëgg yu baaxee tàmbalee ba yegg ci borom xam-xam yi salaf yi lim nu wattul ci dundu saxaaba yi ànd ak loolu ñu xam ni yàlla dafa def nit su fekkee dafay dund ci dund boo xam ni ngëm yàlla lalu ko maanaam dafay mel ni rek aw xob borom xam-xam yi dañuy wax ni nit ki suy dund ci dund boo xam ne ngëm yàlla lalu ko day mel ni xob yoo xam ngeen ne xob ngelaw li ñëw rek da koy wëlbati di ko naawal muy dem benn du am ak dal parce que ci ngëm yàlla ñuy amee dal ñaareel mooy du am poids du posé dara su gëmul yàlla amul benn poids am poids bu ñu koy wax dëgg ngëm yàlla tax waaye nekkul ay mi ngi fekk cent nangam kilo loolu amul solo loolu amul solo moo tax ba saxaaba ba gaay yéefari doon reetaan Abdullah ibn Mas'ud ndax tànkam yu teew la yéen ci yàlla mu ni poids bu rëy la yore ndax ay tànkam moo gën a diis montagne Uhud fa suñu borom comme poids ku gëm yàlla ngëm la moo tax Xasan al-Basri yi daan wax ni ah quwwatul mu'min fi imaani wa da'fu fi jasadi wa quwwatul kaafir fi jasadi wa da'fu fi qalbi mu ni doole ku gëm yàlla dëgg-dëgg ci xol bi lay nekk waaye du nekk ci yaram nga xam nga ne bu ko xam Abu Bakar xam nit la woon koo xam boobu lu ma sax muy daan ndax ku tuuti la woon waaye ngëm yàlla gi da doon yokkale ko di jéem a tolloog montagne ci guddaay ak sarawaay nga xam ngeen ni ci gën a gëm yàlla ci xeet wi ginnaaw muhammad mooy aw bakar loolu moom la yeen dafa xaqiqa ahzab waaye aw bakar bu ngeen ko ni mel kon nit ci ngëm yàllaam ci la xuwaan bi nekk waaye mu ni yéefar bi ak nëbaleem ak nëbam mi ngi nekk ci xolam ah dooleem doo ko nekk ci aw yaramam kon aji gëm yàlla bi kat maanaam ngëm yàlla ci ko wax nga koy solal mbugum am valeur waaye mbugum yokkute kon doomu aadama joo xamante ni maanaam amut ngëm xolam amatul njariñ noppam amatul njariñ ba dina gisee amatul njariñ moo tax bépp société boo gis ñuy dund ci ngëm yàlla lalu ko rek ilal xaraab fa ilal xaraab yàgg yàgg yàgg puissance bu ci ko taxaw rek ci ngëm yàlla lalu ko dafay daan man day dem ba yàgg rek nit ñi dañuy dem ba yàgg xewal xewal ba yàgg rek ñu xew dañu yëg ni guddi yi waaye ngëm yàlla kay mooy loo xam ne day xew te du mën a xew mukk wala suñu borom bi xas ñi nga xam ni ñoom seen mbir yëpp mbiri àdduna rek la ngëm am ci suñu borom naan leen darhum yakulu wa yatamattau wa yulhihim al amalu fa sawfa yaalamun bàyyi leen rek yatamattau ñuy bànneeku rek yatamattau na ñuy bànneeku rek wa yakulu na ñuy lekk rek kama takulu al an'am ah comme ñi nga xamante ni noonu la jur yi lekkee suñu borom ni war naaru mat wala bu ñu dee tàbbi sawara ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون غير أني لا تكينا سيد بالرك جريء بيتك رك ثم ليه لي ثم بري ليه ليه جديد maanaam ku dugul yàlla koo ko fekk ñu ngi lal juróom ñaari junni projet ci kanam dëgg la loolu nag day tekki ne ku gëm yàlla mu teg ay projet ci kanam anam kay waaye ku gëm yàlla projet yu am valeur lay teg ci kanam nu muy def ba daal wasaaroo nu muy def ba yéefari suuf dugg ci lislaam nu muy def ba samay mbokk yëpp nekk ñoo xam dañuy topp yonent bi alayhi salatu salaam ah ci wàllu àddinaam jumtukaay yam seen mbëgg ngir lu mu dimbandikoo lay doon ci wàllu diineem wa hakada yaqulu lmumin moo tax borom xam-xam dañuy wax ni maanaam bépp jullit boo xam ni xamoon nga ko li muy nekk ak seddo mu dem ba mu yàgg yàlla roo root ba xolam ngëm yàlla nee na soo ko xoolee da ngay xam ni ñaari nit nga jàkkaarloo loolu moom lu wér la loolu moom ñi ko dund xam nañ ko ñi gis ñi ko dund xam nañ ko waaye ñi nga xamoon bi ñuy nekk ceddo nga xam ne xamagu diine góorgóorlu daawul pratiqué bi mu demee bay góorgóorlu ci diine nga gis ko boo ko xoolee da ngay jàkkaarloog ñaari nit ndax image ba nga xamoon ak image bi ngay gis tey du bokk ndax léeg-léeg nga gis benn waay boo xam ne da ngay dégg sa xolaka jikko nekk ci gëm jiw moo tuub moom ñëppay tuub xam nga loolu mooy naan ni kon kooku àggoon na ca ximma ci tànkaay waaye nag xamal ne yàlla subhanahu wa taala moom yudallu man yasha wa yahdi man yasha mooy jindi ku ko soob waaye mooy sànni sànq ka ko soob su ko defee yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko yàlla yónnee mbokk yi dafa ñëw fekk ab société boo xam ne ñoom ay jaamu ka islam lañ woon ab société boo xam ni ñoom li gënoon a rëy ci ñoom mooy yàlla joo xam ni bant lay doon wala xeer yaa koy yett yaa koy defar yaa koy jaamu Quraysh xam ngeen ni xóotoon nañ ci loolu lool su ko defee jiiru arab yi ñoom dañ doon rek Quraysh ndax Quraysh xam ngeen ni ñooy jiir bi nga xam ne dala yonent bi meññ ko sallallahu alayhi wa sallam Abdul Muttalib ah nu mu tuddati Hashim Abdu Manaf Qutay Xilaab xoolal ñooñu ni maa ngi leen xam ni kenn ku ci nekk kilifa bu mag nga woon ñooñu kat askan wu nekk nit ñi dañ leen di faral di roy rawatina biñ ne ñoom ñoo tay ci li nga xam mooy saadatullahi fil ard su ko defee loolu waraloon na doomu aadama yi nga xam ne ñoo wuy si woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ci bari ci ñoom ceddo gañ nekkoon mooy ceddo gaamu këram tey nag ñoo ngi kenn ci gaa yooyu nga xamante ni ñoom ñoo daroon yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy alsaxaabiyu aljalilu alkabiru alqadri inda allahi wa inda rasulillah ah amr ibnu jamuh كبير القدر عند الله وعند رسول الله عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح كان لو أنت صحابة ينتهي صلى الله عليه وسلم sooteer loo léegi nee naa la nit koo doon ci kaw suuf rek boo ñëwee ci biir saxaaba yi gis sa bopp booy gone gis sa bopp booy mag gis sa bopp booy góor gis sa bopp booy jigéen sa daal Amr ibn al-Jamuh mbokk yi borom bi subhanahu wa taala daf ko nag koo woon tànk bi benn bi daf ko doon soox waaye waxuma la da ko doon soox yem ci ba xasbun waaye soox bu métti sax la ko doon soox xam ngeen léeg-léeg yàlla mën na tamit muy sox waaye sox bi du metti mën na sox bañ a feeñ waaye léeg-léeg da ngay gis nit ki sox da nga xam ni kii moom ni muy doxee dafa metti amérique bi ñu wax moom boobu moo ko daloon nga xam ni maanaam ak làgg la woon bu metti lool ci moom waaye nag nag doomu aadama day ñàkk benn kër rek sax mu ñàkk kër ci yàlla subhanahu wa taala déedéet waaw alhamdulillah ndax doomu aadama day ñàkk ab kër rek sax mu xeex boppam jàpp mu wërtu amal njariñ diine déedéet ndax doomu aadama borom bi daf koy natt ci ay këram sax mu jàpp ni moom kan laa di toog rek di féetewoo laaj comme ni ko ñenn ñi jàppee nga xam ne ku laaj rek laaj rek ngay féetewoo déedéet saxaaba yi kaanu axdama min dalik ñu ëppoon nañ loolu moo tax waa jii di amri ibn al-jamuh radiallahu anhu yonent bi alayhi salatu wasalaam daf ko wax wax ju neex a dégg yonent bi da koo romb muy soox soox ju métti am ci riwaaye sax boo xam ne bi faatoo la ñaar yëpp wér na yonent bi ñu ko sa tànk bii ngay soox day séen naa la ko nga di ko doxee biir àjjana mu wér felen allahu akbar moo tax mbokk yi unduru ila hadihi albisharat xoolal yi njëkk rek maanaam yow naka ngay xalaatee sa julli yu bari yi sa woor yu bari yi sa naafale yu bari yi zikr jàng alquran yaa ngi sonn ba nuróotoo dara di bëgg àjjana xete te yow kenn waxul di ko duggal biir waaye xoolal kii nga xam ne da koo barile ba ëpp la ni nga ko barilee allahu akbar faqad bushira min qabl bi duxuli janna moom dégaloon nañ ko ni ko yow di nga dugg àjjana loolu nag ak sabab lay doon bu tax nit ñu war a gën a góorgóorlu amir ibn jamuux xam ngeen ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam amir ibn jamuux mi ngi dëkkoon Madina yonente bi mu saxaaba yi commencé di xeetu njub te gàddaaye ko dafa yabal benn waay Madina pour mu leen daawal kooku kan la kan la yonente bi yabaloon mu leen daawal ci yonente bi njëkk a yabal mu leen daawal di jàngal Alquran foofu déedéet waa yaman la ko yent bi yabaloon ñëwoon na Madina waaye am na ko yent bi njëkk a yabal Madina ku ko xam ab kaamee léegi nii bala maa faral déedéet ah yéen yéen yéen kenn Mus'ab ibn Umayr waxal kenn yéen kenn xel yi dafa dafa dafa dafa tëfi yonente bi alayhi salatu wasalaam Mus'ab ibn Umayr la njëkk a yabal Madina pour muy daaw moom la borom xam-xam yi wax ni mooy ambassadeur bi yonente bi njëkk a yabal muy daaw xam ngeen Mus'ab ibn Umayr yaakaar naa lii xutba yi saxoo naa ko waaye seen xel yi dañoo mel ni man xanaa Mus'ab ibn Umayr bi mu dikkee di daawa daawa bu simple la yoroon boo xam ni ku mu daawa rek dugg mu commencé kilifa yi nekk biir Madina tàmbalee dugg ci daawa Mus'ab ibn Umayr loolu lenn ci doomi Amr ibn al-Jamuh tàmbalee dugg ci diine waaye xaritu Amr ibn al-Jamuh daal di dugg ci diine ak ay mbokkam yi nga xamante ni xamoon na leen ñuy ay kaadam ci fa nga xamante ni moom mooy Madina loolu Amr ibn al-Jamuh tàmbali commencé nag di xelam di dem ci lislaam waaye nag teewul mi ngi amoon benn xelam boo xam mi ngi tuddoon Manaab dafa demoon ca àll ba yàq lenn bant defar ko ba mu jekk comme ni ngeen gisee cëram yi ni ñu koy defaree mu daal di koy yàq ba mu jekk daal di koy teg ci këram tuddee ko manaat moom la doon jaam bi loolu amee ko xoolee jëlee ci ay këramam ni mu ko xam dafa ñëw di jàngal nit ñi lislaam Amr ibn al-Jamuh ñëw ci moom bi Amr ibn al-Jamuh ñëwee ci moom ni ko waaw yéen lii ngeen indi nii moom lan la Mus'ab nekk ko nan ko mooy lislaam ak yàlla moo yónni yonent bi mu ne ko yow du am nga ko xel mu ne ko waaw mu ne ko toogal nga jàngal alquran bu leen seetloo mbokk yi baax Mus'ab ak jàngalee ngi ci boo xam ne képp ci daawa ko war na ko bàyyi xel mooy Mus'ab ab daawaam lépp muy jàng alquran ndax alquran mbokk yi ci la lépp ne ba ngeen fàttali ko ñim tuubal ñëpp Usayd ibn Hudayr ñoom Saad ibn Muaz ñoom kawtal yooyu yëpp nga xamante ni ci loxoom lan jaar Saad ibn Ubaada Saad ibn Muaaz Usayd ibn Xubayr ñooñu nga xam ne ay kilifa lañu woon kenn ku ci dikk sa xaatar xaatar danaa toogal ma jàngal alquran keroog bi Amr ibn Jamuh dikkee mu ne ko toogal ba mu ngaa dégg alquran mu ne ko waaw waaw mu daal di koy jàngal suurti Yuusuf di ko jàngalee suurti Yuusuf te xam ngeen wa adraakum ma suurti Yuusuf ak li mu ëmb ci ay mbir yu nuroog mbiri yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li mu ëmb ci ay jàngale yu leer ah mu daal ni léegi xaaral man daal xam naa ma diisoog gaa yi xool ba xam li ne ma diisoog gaa yi comme moom kilifa la woon bu gaa yi dikkee mu diisoog ñoom ba xam lu ngeen xam ci li mu aal mu ko amino amee di woote ci la daal di ñëw nag day saan jàkkaar wax këram bi mu ne ko yaa manaaf تعلم والله ما يريد القوم غيرك فهل عندك من نكير بعد أربع سنين أبو يوسف xam nga ni daay moom li ñuy wax lépp ci sa kaw la nar a dal ah waa léegi yow loo ci xam xërëm bi ni fekk mu ne ko waaw xërëm man jaaxle naa de xam nga ko maanaam ak ñàkk xel ak ñàkk muus dëgg dëgg foofu la yor nag ndax xërëm moom boo ko toogoon di ko woo in tadookum laa yasmau duaakum walaw samiu sax nag fastajaabu lakum li mu ko waxee ba muy ñetti yoon mu daal di root ci jaar bi mu yoroon daal di koy wékkal maanaam ni ko nag wax dëgg yàlla aw bëy sëpp ko nar a tàkk mu daw fayul ba fayul fayul ba ko ni ko aw bëy boo xàccee yàlla nar saa tàkk ngeen koy dugg boo xàccee nar saa dana daw mu jël jaar bi wékkal ko fa ni ko bëy sëpp ko nar a tàkk ci ginnaaw dana daw xanaa boobu défendre boppam mu ne ko jaar bi jaar boobu yow nga jéem loo man de ndax man fi nekk nii lii ma gis xamatuma ko daal di génn dem am na ay riwaay yu ni bi mu demee ci la gone nii daal di ñëw jël yàlla jaar jaati jaar wat ak sànni bi sa àll am na beneen riwaaya bu ni danañ tukki li muy tukki mu tàggu waa këram ni leen man kat damay tukki waaye gone yi yéen ci kër gi teg ay doomam dañoo tuub ñenn ñi yëg na ko ñenn ñi yëgu ko xale yi di ko ko nëbb comme ni ngeen ko xamee mag ñi dañuy teel a tëdd nee nañu ñu daal di bàyyi ba guddi jot ba góor gi tëdd rek ñu daal di dem wasat la nga xamante ni moom mooy yàlla ja yóbbu ko ba ci sën ba sànni ko kon ñëw na ci ay riwaayaat muy xista boobu ñëw na ci ay riwaayaat benn riwaaya mooy bi mu tukkee gars yi dañ koo jël dem sànni ko ca teen ba boole ko ab xaj bu dee bañ ko sànnee boole ko xaj bu dee bi mu yëkkee mu daal di koy xool mer lool daal di koy génne defar ko ba mu jekk yóbbuwaat ko fa nga xamante ni mooy këram bi mu koy yóbbu mi ngi waxtu rek nag waaw mooy waxtu waxtu yu ko mel maanaam bu doon keneen si kon day def compte x mooy xamul ku ko def ah mu commencé di waxtu wax ay waxam yu bare bare bare wax wax yu saaga boobu su ma ko dugg ci lislaam saaga wax ay wax yu ñaaw ci képp koo xamante ni moo def yàllaam ji nii waaye xam naa ne yàlla ji xamul fulla bi ndax yàlla bi xoole ba ay gone di ko watat di ko tànn ci àll ba di ko boole xaj yu jeeya ah yàlla jooju day laa yamlikuuna darran wala nafan wala yamlikuuna mawtan wala xayaatan wala nusuran yàlla joo xam ne mënul a yorul dund yorul dee yorul jeex yorul dara jooju yàlla kenn du ko jaam am naa waaye bi gën a siiw nag mooy gone yi dañoo war a yàlla ji bàyyi ko ba mu tëdd ji ko dee yóbbu ko ba ca àll ba sànni ko fa ci fën ba mu yeewu moom am nañu dem xool li lépp tuubagu gis riit bi mu topp riit bi topp riit bi gis na tànki waaye xamul ñan la ba ca sënd mu fekk yàlla ji mu mer lool fekk mi ngi soox soox bi nekk mu fas bi yàlla ji defar ba mu jekk indiwaat teg jëndi parfum ca marché ba defar jël benn éponge pompe pompe lépp salte nekkoon maanaam daal yàlla ji moom lépp yaa koy defar mu ngi dund sum maaral rek te ñaareelu fan nga gars yi defar ko mu daal defar nam defoon ñëw dem jëndaat parfum parfum ko gëstal ko defar ko ba mu jekk bàyyi waaye te ñetteelu fan ba ba mu ñëwee fekk xale ya daal di koy teg te sën ba wala xaj bu dee teg ci ndigg la ah ak njàppaan ñëw jonkan sa bopp ba mu dikkee xool ko ba mu yàgg nag ci la muy dëgg dëgg na tey laa lay mujjee jaam ndax yàlla bi xoole ñu koy watam ñetti guddi ci mënul mënul boppam dara yàlla bi xoole dañuy teg ci boppam aw aw aw aw ab xaj bu dee ci ndiggam ab xaj bu dee ci mënu ci dara man ni damay tuuti lii mooy sabab mu daal di ñëw dugg ci li nga xamante ni moom mooy lislaam lii nag am na ñoo xam ne ka lañ dee gis nga loolu du du muus de hidaaya la loolu hidaaya la du muus de ndax bu muusoon xam nga ni comme toolam di jaamu këram di defar ak kan loola moo leeral ni muus amul foofu waaye man yurid allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam am na ñoo xam ne dem nañ bay sukkuraat te ñu ngi noy ci seen yàlla yi bant yooyu allahu akbar am na ñoo xam ne dem nañ bay baaxu te ñu ngi noy ci seen yàlla yi bant yooyu kon yàlla subhanahu wa taala ku mu na ma gindi rek dafay ubbi dënnam leeral ci lislaam ah moo tax dama wax wallahi law kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wasta bi'rin fi qarnin mu ne ko yow xam ngay doo yàlla man xam naa ne bu doon yow yàlla nga yàqkat jii du ngeen xoole bay nekk du ñu leen boole ci biir teer bii ci man xam ngay doo ko def ah wax ci ay wax yu bare bari sant yàlla mi nga xamante ni moo ko gindi ba mu dugg ci li nga xam mooy diine islam kon amee bi jamoo bi mu duggee ci l'islam fekk na ab xaritam leng dugg na ci l'islam ah bu ñuy wax amr ibn xiram xam ngeen amr ibn xiram wax naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi ay yoon sax amr ibn xiram mooy kan ci saxaaba yi ku ko xam na dolli beneen kaamil bi amr ibn xiram xaritu amr ibn jamuux leng la woon ñoom ñaar li ak li ma ko fi waxaat bari comme man daal Amr ibn Hiram mooy bàppay Jaabir wax naa leen ñoom ñaar bi ñu faatoo xaritoo nga tax ne ñoom la yonent bi suulandoo loolu wax naa ko fi ay maraat ñoom ñaar seen xaritoo dafa jéggi woon daye ko bi ñu faatoo yonent bi dañu nañ leen boole ci benn xam ne ndax xaritoo bu tar xam nga loolu bu yonent bi demee ba di ko def lam lay wan ni mooy kon xaritoo ba taram na lool kon kooku mooy papay jaabir moom la yonent bi doon wax naan jaabir yow dangay lëjoo mu ne ko sama bàyyi faam mu ne ko yow daa yow daa jarjoo yow sa bàyyi am na lu kenn amul ci jaay inna rabba inna rabbi kallama abaaka kifaaxan yàlla wax naa sa bàyyi lii wax mu toon allahu akbar mu ne yàlla wax naa sa bàyyi ba adaabaat mu wax ak moom lan la ko wax mu ne ko waxal lan nga gën a bëgg ma defal la ko mu ni ko li ma gën a bëgg mooy nga delloo ma sama ruugi ma dem xeexale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom ni ah loolu nag moom du nekk moom ndax moom soo xasee dem rek jeex wala barkat laa yu wax su ko waxal leen mu ne ko jeex na loolu laa bëggoon kooku dafa am tolloog day wax loolu xaw ma kum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla defal ko ñaari laa muy naaw di ànd ak saxaaba yi di ànd ak malaaka yi léegi daan toog ba mu yàgg mu ni tey leen am rek ni soram mbàkkay jaabir mi ngi noonu romb ànd ak malaaka yi nuyoo loolu hada la huwa alfawz alazim moom mbégte ak texe gu mag daango am nañ ne xorob kon ñoom ñaar ay xarit lañ woon yu jege yoo lool su ko defee am nañ ñu jamour bokk na ci ñi nga xamante ni yàlla baaxe na leen comme ñu daal di dugg ci l'islam bi mu dugg ci l'islam am na ay wayu gudd gudd yu mu doon way atubu ila allahi mimma mada wa astanxidu allaha min naarihi maa ngi tuubal yàlla musiba yu yàgg yi ma nekkoon maa ngi jéggalu sama borom bu jéggal ma la ma nekkoon waaye maa ngi sant mu xëccali ma ci sawaram soosu wax na ci ay wax yu gudd yoo xamante ni daf ko doon bàkkee yàlla subhanahu wa taala ngir gindi gi nga xamante ni gindi na ko ko mu dugg ci l'islam istidraakun lima faat bari naa ne ci saxaaba yi ñoo xam ni su leen yàlla baaxee ñu dugg ci lislaam dañuy fexe nag xam nga comme retrade lañ koy wax fexe gaawaat ba defaraat nag la baaxee xasa bari ci ñun ñu ko war a def nag xam ne ñoo xam ne ci ñun balaa leen yàlla baaxee sunna def nañ ay njaaxum ci ay njaaxum ñoo xam ne kenn xamul toll am na ci ñun ñoo xam ni balaa leen yàlla baaxee diine def nañ ci ay njaaxum ñoo xam ne kenn xamul toll waaye gis na nag ku yàlla dara baaxee bu la baaxee lislaam maanaam njaaxum yi nga defoon da ngay fexe defaraat ko am na koo xam ni écrivain la woon bindkat la woon di wax di ŋàññi lislaam kooku mu yëg ni daa war a bindaat nag pour defar defar defar loolu ka mel ni xaalis lu nga xam ne ku jullit ma tey am échec ci xare loxoom génn ko da koy fayeeku ci xare gis nga gars yi nga xam yàlla dina la mayoon mën a wax nga xam ni sa way bi ñuy woote ci bidaa moom seen làmmi ñuy gën a sax suukar ak lekk ñoom it kadalik kon kenn ku ca nekk rek na saxaaba ya doon def ci istidraaj li ma ba te loolu lu bari na lool xaw tuuti ko nga ne saxaaba yëpp saxaaba yëpp xam ngeen Abubakar parce que yàlla na Abubakar léegi njaaxum yi amul sax ndax ngeen Abubakar yàlla defal na ko tawfiq kenn du ko nekk nit ay njaaxum ndax moom dafa mën a simple moom waaye ànd ak loolu lépp nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay fexe gindi man comme ni ma gindee ko wala commencé ci benn bis rek ah juróom benni konkal yi nga xam ne boo leen génne woon tey ci mboolam saxaaba yi mboolam yi wàññeeku bu ñu yëg ko ah ñoom Asnaan ah ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Abdourahmane ibn Awf nga xamante ni moom mooy ñu dugal leen ci diine Amr ibn Jamuh radiyallahu anhu di ko yàlla baaxee mu dund ay at yu bare bare bare bare ci ceddo ga xaru tuuti kon borom xam-xam ñu ne daanaka mat na juróom benn fukki at ndeysaan dem na baam juróom benn fukki at ak koo xam ne nekk xam lislaam waaye nag léegi nee na moom caaxaan yi mu dayoon yi mu doon def bëgg koo fayee leneen lu dul am shahada fi sabilillah mu am shahada fi sabilillah si biir këram ci la doon entraîné ay doomam moom am am rek ñu jëm wax di entraîné ay doomam di leen jàngal set di leen jàngal taw jaabi waaye di roob ci seen xol yi bëgg am shahada fi sabilillah moo tax keroog xaswatu badri borom xam-xam yi dañuy wax ni maanaam dafa bëggoon dem badal ay doom ñoo ko def mu réer ni day dem badal ay doom tere ko ba tere ko réy ci dëkk dem waaye Uhud moom ba mu ñëwee ba mu riiraatee ne day dem gars yi dañ koy tere mu ni mukk ba mbir ma yegg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nañ ko bàyyi si ñooñu mu doon entraîné ci biir këram bokk na ci Muaaz ibn Amr ibn Jamur Muaaz ibn Amr ibn Jamur nga xam ne kii moom moo rey Abi Jahl Muaaz ibn Amr ibn Jamur allahu akbar këm gëm xoolal ci fit bi bàyyi bi defoon ci moom ak ngëm yàlla gi ak jumloo ko ni moom li muy nekk nekk gone dafa war a am sahaaba fi sabilillah gone gi mooy nekk nii nee na keroog gi tëb Badr bi ma déggee ñu naan Abu Jahlin ci ñi gën a mën a saaga yonente bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam ci laa ni sama bakkan ñaanuma yàlla mu fekkee ko bu ko sama Abu Jahlin la ngay def allahu akbar sama bakkan ñaanuma yàlla mu fekkee ko bu fekkee bakkanu abu jahlin dana ko fekkee mboolo maa ngi wër di xale moom mi ngi wër wër kenn laalul kenn abu jahlin la doon wër ak di ko laaj bi mu séenee abu jahlin ba xàcc rek sor ko jaati ju abu jahlin àgg àllaaxira gis nga bi mu ko soree nekkete doomu abu jahlin mi ngi ci ginnaawam te gis ko muy akramata ibn abi jahl akrama xàcc jaati bi rek sor matum muy matum amri amr nu nu mu tuddati doom ji doon am Muaaz ibn Amr ibn Jamur gis ne dañ ko soree da koo sor ba loxo bi lang waaye dagg aw aw der mu ci def maanaam di ko langal xale bi mooy ñett li mu ne bi ma gisee ni mi ngi may langal nee na ma jël loxo bi ne ko waaw sànnee ko fii xaaral ba ma xare ba pare su ma paree ma xool ba xam ndax danañ la mën a faj wala déet nee na noonu la yendoo ak loxo bi di xare ak moom li mu demee ba mu doon def mu gis ne loxo daa ngi koy teene mu dal di koy xëcc benn yoon mu wax du mu dem imaamu dahabi kasiiru aalaam nubala bi nettali lii ba noppi nga ni wallaahi wallaahi wallaahi lii mooy ak njàmbaarte mu ngi ñett yoon ni lii mooy ak njàmbaarte li tax mooy njàmbaarte mooy mu joxe misaal mu wuuteeg fonkalum saxaaba boobu nga xam ni ay xeet yu nit ki moo ko sonal mënatu koo muñ ba mu dem boppam moom la ko yent bokkoon ni kii di sinna su waa sawara lay bokk xool ki nga xam ne dañoo dagg ab loxoom nit nag dama koy wax dama ne lii sa xëccu ay léeb wallahi kama kaana xadisan yuftara du ay nekk li de yoo xam ne ay léeb la waaye ay mbir yu am la dafa fekk ni gis nga li ba jar ba jar léeg-léeg da ngay gis benn waay muy liggéey liggéey gox goo xam ni yow da nga ne lii nan la ko nit mën a dékkoo fekk dafa xalaat ci ni koy fay bu wàccee maa xam ngeen ni benn waay bu taxawoon kii mu ne ku ñëw ma dóor la juróom ñett fukki kuur te jox la un million dina am ñu tëdd dina am ñu tëdd de léegi daal di taxawoon bii mu ne kaay ma ku ñëw ma dóor ko juróom ñett fukki kuur xam ngeen kuur ci ndig xam mën naa damm sa sax yi am na ñoo xam ne boo ñëwee soo koy jox la yore ñu jël te mooy dinañ ko muñ de mooy nit ki li ko jaral moo ko jaral da ngay gis saxaabatul kiram radiyallahu alayhim mbir yi ñu doon wax ak xeeti métti yi ñu doon dal man ak yéen ku ko natt ci sa bopp li ngay njëkk a laaj mooy ndax man li mën naa ko te boo amul sans compte ba déedéet lay doon waaye ñoom dafa yomboon ci ñoom neex lool lu tax maanaam yow fi ngay xool ak ñoom fa ñuy xool dafa bokkut ñoom dañ doon xool ila jannatin arduha samawatu wal ard qumu ila jannatin arduha samawatu wal ard jug leen daw gaaw kun jëm mu ni ci àjjana joo xam ne mën nga koo am kër gu toy ni asamaan a suuf allahu akbar yaatuwaay kër goo xam ne suñu borom ni yaatuwaay bi toy ni asamaan a suuf àjjana joo xam ne bokk yaatuwaay bi toy ni asamaan a suuf uiddat lil muttaqin suñu borom da ko waajal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla boole ci ñooñu moo tax imaamu zahabi mu ni lii de kon moom mooy ja ak jàmbaate noonu la continuer ba yàlla subhanahu wa taala baaxe ko xare ba jeex mu daal di fekkub loxom sànni ba ne léegi moom dëkk li nga xam ne moom benn loxo waaye nag am na mbégte mbégte bi li ko waral moom mooy faran saaga yonente bi Fatima alayhi salatu wasalaam wax naa leen ci sugar si miraaran wa tukraaran saxaaba yi muñu woon a muñ di dégg kuy xas wala muy taaga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko mas a def ku ne ñi ko mas a def lépp nag laa wax lu dul ku rëcc wala ku tuub da ngay rëcc da kenn jiitu la wala da tuub waaye di taaga yonente bi alayhi salatu wasalaam pare am jàmm déedéet loolu mu amul woon saxaaba yi ñoom mënuñu woon a nekk loolu li nga xamante ni ñibbite nañ nag num tuddati Muaad ibn Amr ibn Jamuh andaale loxo bu kët loolu tiis na lool ci daal waaye bàyyi bi mu yëgee ni Abu Jahl mi doon saaga yonente bi sallam faat nañ ko moom faat na tiis yi nga xamante ni moo wadd ci kawam noonu ci la continué moom Amr ibn Jamuh di ndimit ak a ñaan yàlla moom it am shahada comme ni nga xamante ni noonu la ko saxaaba yi di amee te loolu mi ngi amee woon ca keroog Badr nga xam ngeen ne Badr ca la ñu rey woon laanatullahi alayhi ah Abu Jahl waaye mbokk yi Amr ibn Jamuh ci boppam yonent bi daf ko defal tasfiya koo ne ku baax la xam nga tey ku baax la ba da nga dugg àjjana yonent bi tam nee naa la teelal na ko dem àjjana sa tànk yii gis naa ko koy dox ci biir àjjana mu nekk lu wér ah waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj na koy seedeel ak mbaax ndax am rek yàlla daf ko nattoo woon daf ko baaxee woon mu nekk ku tabe ku tabe nga xam ngeen tabe ci ci gën a baax la bokk na tabe nga xam ne alalam moom soxla si mbokk ngir du ko fekkee tabe lool ba nit ñi di ko di ko soow noonu muy yëkkati alalam di ko jox jullit ñi di yëkkati alalam di ko jox ay mbokk jullitam jaabir ibni abdullah nee na yonent yàlla da ko woo ba ni salama muy giir gi mbokk ñu ne waaw man sayyidukum yéen seen jiir ku ci ku ci nekk sang mooy ku ci gën a baax rek koo ci nekk sang gaa yi ni ko al jadd ibn xay benn waaye bu ñuy wax jadd ibn xay mooy sang bi wa inna la nubaxiluhu ay nattahimu bil buxl ñu ne waaye leen doo muy sikkam mooy dafa nay mooy sang bi sang bi yëpp moom askan yëpp la ñuy salama mooy sang bi waaye musibaam mooy dafa nay yonente yàlla nee na wa ayu daain adwa min al buxli ndax xam ngeen jàngoro ju gën a yées nay ah mu ni bal sayyidukum al jaadu al abyadu amr ibn jamuh ah borom karaw bu tëq ji te weex tàll mooy seen ab tàng mooy kan mooy amr ibn jamuh kon loolu aw saggalaw bàyyi koo ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak seede bu baax dal di jëm ci moom kon loolu amr ibn jamuh nii la meloon masaahid yi nga xam ne yonent bi da ko doon def sallallahu alayhi wa sallam yam ca mën a fekkee da ko doon fekkee badar wax naan ne doon na jéem dem ay doomam ñoo ko tere te mu ne bokk yi ci xarawaati na ko te ko am ngeen loolu bi nafsul quran yi xarawaati na ndax melokaan woowu yore aaye ñëw na ci alquran ah sunu borom di wane ni ñii kat moom xeet wàcc na leen ñooñu nga xam dañoo feebar ñi màggat ba mënu ñoo xeex ak ñi nga xam ne ay gone yu tuuti yi ak ki nga xam day soox soox bu metti ñooñu ñëpp xarawaat na leen yéen ci yàlla moo taxoon garab ba saxaaba yee dem mu ñu leen yéen day bu yëgoon ngeen xam ni yéegu leen montagne wàccu leen ci suuf fatakkaluwu leen yéegu leen seen fas wàccu leen lu dul am na ñoo xam ni ña nga toog madina ba noppi waaye ñoo yéen yéen a tolloo ci yaaba ñu ni ko ah mu ne waaw waaw mu ne xabatahum al udr ngànta leen téye nga xam ngeen ni Osman Osman xam ngeen ni ñëwul woon Badar kan moo xam ne tax Osman ñëwul woon Badar teewul Badar te wax ngeen tuub na de soxnaam moo feebaroon jazakum allahu xayran jazakum allahu xayr soxnaam Umu Kulsum moo feebaroon feebar bi aajoo borom këram toog yonent bi alayhi salatu salaam ni ko toogal ci feebar bi te ba mu koy wax xam na lan doon def ndax di waa Madina yi indi victoire bi fekk nañ ñu suul soxna si ba nopp faatu na moo tax yéen masalam bi muy séddale màng badara bi dafa yëkkati cërëb asmaan mu mat jox ko ko lu tax ngir li ko teree ñëw moo tax kera ba nga xamante ni gars yi ñi ngi sikkal asmaan daa daw daa daa daa daa dawoon dawoon badar bokk na ci Abdoulaye ibn Omar lam doon tontu mooy wax ji mooy yonent ne ko toogalam si ndigalam te lay war ni am na yoolu ku dem badara mooy ba ñuy séddale màng ma jox nañ ko ci ko amul yool ko duñ la jox sa wàll kon mi ngi noonu kon Amr ibn Jamuh bokk na ci yi nga xamante ni nit na ko lool mooy at yu bari yi nga xamante ni def na ko ci ceddo yàlla def na xolam di bëgg jihaad mu bëgg am shahada kër bi ñu wootee Uhud fekk yéebar yaa ngi mer lool ngir li leen gaa yi defoon ca badar ndax badar na dafa métti soo gisee oxod ñaari yëf ba ñetti yëf a tax mu métti si jullit ñi bi ci nekk mooy état bi ñu njëkk a def mooy mooy ndigalal yéen sa xasala oxod sahaaba yi bokk na ci état yéen ca am bokk na ci leen ko yóbbu mooy mooy ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nañ def lii ñun ñun seet ñun nii lañ ko gisee ndax yonent bi dafa bëggoon ñu xeexee ci dëkk bi waaye yoo xam ne ñoo tardé woon badara seen seen sàngaay ak seen mer ñu ne déedéet nañ ko fekk leen def leen lu mel nañ ko fa badar kon bëgg nañoo jël seen wàll wuuteeg yonent bi foofu muy benn ñaari bi mooy badar ci boppam badar dañ caa rey ay kàngam ci yéefe yi reyin woo xam ne daf leen a metti ba nga xam ni xam ngeen ne xam nga ni ñu ko def hind ci kaw lañ rey bàyyam hind Hamza moo rey bàyyam rey mu mu soof sax rey moo xam ne xam nga Hamza gay na ko sa war la woon rey mu rey lu metti looloo ko metti moom ba muy ñëw ko xet la ko taxoon ñëw mooy na Hamza dee moom julli ñi kañe nag yéetal ji ko sax ngeen ñëw si wax si ma ko rey lam ko wax mooy yow lenn rek laa la sant moo tax wax si sax ci bopp mu xarewul moom wax si moom li mu duggee ci xare bi jàppante bi sax kenn moom xam nga lan xool bu nekkul mu rey ko laaj dem yoon waaye nag gis ngeen rey ga ku dina ko lool dina ñëw ci dundu xam nga insha allah ibnu abdul muttalib ah xam ngeen ni jël na ba ndeysaan mënut la mënut la jàkkaarloog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na benn bis kaala yu muuru day yegg ci sa xol ni ko jadd loxo yonente bi jël yonente bi ne kii kan la mu ne ko man la wax si wax si kàddu la am de mu ne ko naam mu ne ko jéggal ma yaa rasulallah yonent bi mer na ko mer ñoo xam ni waaye la faw mu téye ko ci parce que da ko bëgg a laaj lan la rey xam nga ni nga ko mere moom laa wax naan sax tabastumal moo ko tudd léeg-léeg ngay muuñ nit fekk yaa ngi ko meree mere ba loolu la loolu la gaa waxoon yonent bi muuñ ma demee day ree nekk xam naa ne kii muuñut muuñut kontaan muuñut ko mer la yonent bi téye ko ne ko waaye moo def ba rey xam nga mu daal di koy utiliser seen moom yegg yonent bi ne ko sori ma sa kanam bu ma jàkkaarloo ko sa kanam allahu akbar mbokk yéen sax bu ñu amee yërmande ak ni ni ni ni mu bëggee saxaaba yi comme dem na ni wal na gannaaw wax si daa tëbb wax si dafa tëbb gisatul yéen da yéen ci lu baax waaye nag ah ñu ngi yaakaar ci moom ay ngëneel yu ko yàlla kaffaaralee bàkkaaram yooyu ndax kat ñenn ci borom xam-xam ñu ne moo rey mu koy nekkul kat boobu xaalatul xam ne bu ko rey ci moom jàpp fekkam jàmm ko moom moom moo ko rey wala daa bokk dina ko rey ñaari benn am na ci moo tax da daan jooy di baral di wax ni sama bàkkaar bële de maa ngi ñaan yiw bi ma nar a ajee fii kontaan la gis nga de te it am nañ ci yaakaar ndax inna alxasanat yuzhibna sayiat amir ibni jamuus bi ñu wootee oxot yéen dañuy nar lool ndax seen sàngam yooyu ñu rey amir ibni jamuus mu ni moom day dem ci xare bi amoon na ñeenti doom yu góor yoo xam ne dañ doon xeex ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye doon ñeent doom yëpp téye ko ni ko yow nga doon xare mu daal di dem ci yonent bi alayhi salatu wasalaam kalaame leen yonent bi ni ko amma anta faqad wada allahu anka al jihad yow moom jarul ngay dem ci xare ba ndax yàlla wàcc na la jihad ah fa qaala li bani bi ko yonent bi waxee loolu sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa ma alaykum an tad'u xaqir bu fekkee moom yàlla wàcc na ko ba nag waaye ñun fipp nu bëgg a def bàyyi leen ko loolu nag jurit am na ci sañ-sañ mbokk yi am na yoo xam ne suñu borom mën na la kaa yombalal nga ne man damay jël moom laa leen doon fili ci soxna ko tudd xàqatu ah binti siiri ah benn waaye doon na ko wax ni ko waaye yow ak ñii nga magale nii pour la fekk ngay jël baat bu fireeku ba ci suuf nii xanaa yow bokkoo ci aaya ji yàlla wax ni wala tawaadu min annisaa illaati laa yarjuna nikaaxan falaysa alayhinna junaaxun ay yadaana thiyaabahun yow maa def na yàlla may na la kay nga muuru muuraay bi yàlla tam bañu jënd am nit loolu xam ngeen ne leeral na surtout nuur nga xamante ni maanaam ni mu nekkee obligation ci julit bu jigéen màggat na mu may nañ ko ci xoyofal tuuti waaye nag bu mu feeñal ay taara bañ ko waxee loolu ni ko xanaa bokk ci mu ne ahan koy calaa bokk waaye nag yàlla moo tax ni wa an yastaxif na xayrun lahum ànd ak nag ñu mel muur ba mat moo gën te ñoom mu ne man ko damay bokk te ñuy def la gën kon loolu laa taamu moo tax jullit am na tam seen boobu amee na jama mu ne moom li mu taamu mooy day dem xare nee na bi muy génn dafa ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu mu dellu si waat loolu soxnaam moo ko nekk nii soxnaam sëru amr ibn xiram la woon maanaam xaritam boobu magam bu jigéen wala rakkam bu jigéen moom la amr ibn xiram maam amr ibn jamuux takkoon bu ko defee keroog Uhud yonent bi alayhi salaam bokk na ci liñ doon ñaaxee saxaaba yi muy quumu ila jannatin arduha alsamawat wal ardu uiddat lilmuttaqin yonent mu ni riir leen jug leen jëm ci àjjana joo xam ne yaatuwaay ba asamaan la suuf sunu borom ko waajal ñi ko ragal fa qaala wa huwa aarij fa qaala wallahi la aqda la aqxadanna alayha mu daal di jóg bi mu jógee fekk mi ngi toog mu ni wallahi gin naa ci yàlla la aqxadanna dinaa jóg bi sama tànk yi ci biir àjjana jooju comme yépp daal di jóg rek riir daal di dem li muy dem mi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla bu mu dellu si ndax hind di rakk wala mag ci amr ibn xiram nee na ka anni anduru ilayhi qad axada barqatahu wa huwa yaqulu allahuma la taruddani soxna si nee na mi ngi mel ni maa ngi fàttaliku bi ñuy jël mbubbu xomam bi di ko sol ak sooxaayam tey baral loxom naan ñaan yàlla yàlla bu ma dellu si waat loolu loolu loolu yëgis bu kaw la bokk yëg-yëg bu kawe la nga jihaad yéen yàlla nee na képp ku faatu ku fekk say waxtaane say projet bokk ci nga dee bi sabilillah xamal ni dee nga ci bànqaas ci bànqaasu naa fekk yi mbokk yi wax jooju buñ si nattee suñ bopp moom mbaa du nekk si ñun ku faatu ku faatu te bokk ci say reer yi jàpp ni yow war ngaa mën a sax dag dëgg la ko xëy na boo gisul boo saara boo saara waaye nag na bokk ci sa yére tey su ma ko gisoon ma soxaada ku faatu te fekk loolu bokk ci sa yóbbalu àllaaxira yëgal ni dee nga ci bànqaas ci bànqaas bi naa allahu akbar moo tax soxaada lu rëy la lu rëy la léegi nag ma du saaraa ci lenn lu tax nit ñi ragal soxaada lan moo tax nit ñi ragal soxaada marke jéegi yoon yàlla lu tax nit ñi ragal non non non nekk ci deewa waaw waaw ba jaay dina sabab ci la waaye léegi dañ nekk xam ni saa daf ne waaye nag yëgal ni yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nekk ci woowu nit ki saa day yëpp mokk la koy ma bokk yam yàlla dafay oyofale mel ni ko koy allahu akbar dama yaakaar ni ni ngay dégg histoire dëgg la li ñuy def jub ci war a mën a nekk la waaye yàlla pour participer ci ndimbalam mooy waral mbir mi day mel dañ lay xuri xuri xanaa nag wax dëgg yàlla lu waay nëbale nëbale wala mën a munu xëri gis nga de allahu akbar kon mbir maa ngi ni man ñi tax nit ci di ko ragal loolu yàlla daf koy dimbali subhanahu wa taala soq dara di njëkk war ah mooy xalima di lay dundal ak garanti diggu àjjana bu doo bokkal say ci def yow man soq dara di njëkk war rek dañ lay jégal sa bàkkaar yëpp ngir door tàgg àjjana loolu amr ibne jamour dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko mu ne yonent bi waaw man est ce que mën na maa xeex fi sabilillah mu ne ko waaw man ngaa xeex de mu daal ni ko de insha allah bu sama soox bi dinaa ko soox ci biir xare bi yonent bi ni ko moo ne wan nañ ma ta soox bi day ci biir àjjana nga tey dox mu nekk loo xamante ni lu wér la maanaam tànk bi dara nekk noonu amr ibne jamour dugg ci biir xare bi ndeysaan continuer di xeex ak sooxaay xam ngeen ci soox borom soox ne xam ngeen yëf yi di gudd doo mën a dem du sori ñu faat te mu am li nga xamante ni moom mooy shahada gam doon naan yàlla subhanahu wa taala allahu akbar sama naaw da ko doon mbéy yàlla baax ko ko waaye nag li ci gën a yéeme mooy li ma wax sànq mooy liqaaul ahbaab inda al qubur soxna ya ba ñu faatoo sax yonente bi daf leen doon dajale ci biir armeel yi keroog bi nga xam ne soxna njëriñ Abdullah ibni Saalaba ibni Suayr al Hudari mu ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog Uhud dañu dajal leen ma gaay ndax mën naa indi seede ëllëg àllaaxira amul kenn kuy indaale ay jam-jam wala ay ay deret wala ay saw saw jaati lu dul la cay génn ci deret day soppeeku par rapport nit àllaaxira yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam di leen faxasal seen suuf si mu ne xool leen ñi gën a ëpp luñ mokkal alquran ñu jublu ci ñoom doo ko xool ci ñetti rek loolu waxoon naa ko ci dàgg yi baatu loolu ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam commencé dajale benn par benn xam ngeen keroog wax waxoon naa leen ni ah am na ay gaa yu bari dañ leen di boole ci ay bàmmeel te loolu dagal na te dem ci fuqaraa yi masala bi masala dëkk la maanaam bu fekkente ni ñu nga ci cosaan dara tew benn nit bu nekk moom bàmmeel kenn ku nekk dañ laa war a suuf sa armeelu bopp waaye lu mel ni xare bu amee wala peste am wala dee bu nekk ay bombardement wala yooyu ba nit ñi bari su boobaa bu ñu bañee sonn mën nañoo suuladoo ay bés yu am xam kooku benn la su fekkee fa ñuy gas dafa tekk ci nit comme wax da nga am dëkk yoo xam ne lépp tekk la ay xeer daanaka nga xam ne gas bi rek benn bàmmeel mën na gas ko problème xam ngeen gas bàmmeel ci suuf si boo ko gas ca xeer su boobaa borom xaare ñoo sañu ñoo gas sax bu rëy rek am ngëri am ngëri xam ngeen ngëri ngëri ñu comme fëlum quoi ñuy jël di sotti ci biir par ñett par mbooloo ila axiri ma hunaali loolu amee yonent bi alayhi salatu wasalaam xool gis amr ibni xiraa xool gis amr ibni jamwa mu ni ñaar ñii de yàlla moo leen boole woon ñi ay xarit comme ñu dala ay copain yu jege yoo lool yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ni fa innahuma kaana fi dunya mutasaaqin fajcaluhuma fi qabrin waaxid mu ne ñaar ñii daal gis naa ñu boole leen ci benn bàmmeel ndax ñoom ñaar biñ nekkee ci kaw suuf ay xarit lañ woon allahu akbar loolu nag mooy lu xaawul axbaab nag soppe yi doon dund ci àddina soppante ngir yàlla ba dee ñëw borom bi kat sunu bi yonent boole seen biir bàmmeel ñu nar a ànd ñoom ñaar ñëpp mu dugg àjjana ndax ngeen ni kii moom faye nañ ko muy ànd ak malaaka ya gàddi na àjjana ba ànd ak malaaka ya di dox ay yitte sa ru ruuxam tey moom yéen bi ñu ne ko wan nañ ma ko tànk bi ngay doxal moom ci biir àdduna bi fele loolu ñu xaw la axbaar borom xam-xam yi dañuy wax soo delloo ci tabaxaat ibnu saad tabaxaat ibnu saad téere téere la bu mag ci téere yi tasaani yàgg la nee na téere mu aaye ibn abi sufyaan te lii da lay wan ni ñii ay nit yàlla la ñu woon ci gina li ñuy wax nitu yàlla nga xam ne koo xam ne dafa jeex ci bëgg yàlla kat ci def ay ndigalam bàyyi ay tereen nekk wàllu yàlla piir ci jamonoy muawiyata ibn abi sufyan nee na am waamin taw dafa ñëw ba mabb armel yi mabb armel yi am na riwaaya bu wax am riwaaya bu wax leneen bi loolu amee ñu gis ni armel yi kat kon war nañ koo doxal parce que kii ñu leen suul bu yàggee kat waaye ndox mi mën naa yàq néew yi fa nekk mbaa mu indi fa yeneen mbir am na beneen riwaaya bu ni ndox lan ko doon jaarale wa ala ayin min ihdaahuma bi ñu gisee ni kon faw ñu sulli néew yi ci armeel yi ci lañ ñëw di sulli di sulli di sulli ba mu yàgg ñu daal di daj ñaari néew yoo xam ne ñu ngi kole woon kenn ki mooy amr ibn jamuux kenn ki mooy amr ibn xiraam dëgg la nag am na riwaay yu wax ni sax fekk fa amr ibn ihram ndax jaabir ibn abdillah bi mu toogee juróom lenn weer mu ne man daal yiñ boolee sama baay ak ñëw yi noonu daal xaar ma dem sulli ko suulaat ko juróom benn weer bi mu dëkkee sulli ko dafa fekk dara sikk ci datu nopp bi daal la mu wax ni la am ak sikk su ndaw su ci nekk am na amr ibn jamoo moom bi ñu ko sullee dañoo fekk dara cati ko fii ci përëb yi jamoon nañ ko ca benn tet tet ba doon sotti deret bi ñu ko génnee deret jooju mi ngi doon génn allahu akbar kan sanawaat arbaina sana yéen fukki at subhanallah wala hadin karama loolu loolu loolu mooy karama dëgg la xam ngeen waxoon naa leen fukki jamono sax korom nga xam ngeen ni am nay jamono ñi nga xam ne ñu ngi toj abdul malik mi ngi toj léegi yéen sax la bëgg koo boole ci biir jàkka ji kon boobu moom moo gën a yàgg moom ndax xam ngeen Abdoulaye ci ginnaaw waa jàkka mu aay la woon kon lii moom téeméeri at yi teg na maa mu jege li ñuy wàq bi wàq ba mu yàgg rek teel bi wala fukk bi ñu tip ci lu nooy gisul leen la ko xool muy ab tànk mu xool tànk bi dara tikku ci ñu daal di tiit tiitaange bi li ko waral mooy ndax tànk bi nekkul tànk yonente bi alayhi salatu wasalaam li ñu wooyee xubaraa yi muy ñi nga xam ne ay mag lañ woon ci dëkk ba xam xam na ñoo xam ba léegi ñu ngi jib xam nañ ci lañ xool gis ni tànk booba de tom tom del mooy tànk bu amee ñu xam xam dara sikki ci dara dara sikki ci mu mel ni man comme démb ca ngoon nag rasul wala kay bokk loolu nag dinay faral di am donte nit ñaa ngi wax nag suuf léeg-léeg mën na laa bañ a bañ a bañ ba du la lekk wala mu bëgg la ba du la lekk ñaar yëpp mën naa lekk nag waaye lii moom bëgg la moom bëgg la moom ñii moom ñu baax la léeg-léeg nag man ngaa dem gis nit defal ko ko man maa ngi fàttaliku bi ñuy nekk ay ndongo ca daara ja kese bi na fekkewu ma ko man naa ko nit dama dégg ko am na koo xam ne su jigéen la suul nañ ko ay at ba ñu ñu fàtte génération yam nekkalam ñu fàtte liñ ko sullee dañoo fekk nam melal ni la mel waxu dardal loolu nag dina man mën naa am lu mën a nekk la lu mën a nekk la ndax xam ngeen ni bu dee yonent ya ñoom moom wax bi jeex na ndax yonent yàlla ne ñun yonent yi suuf du lekk sunu yàq te tasku ci jamono yu amay ibnul xattaab te jamono ju yàgg da nga xam ni ay junni at lu mat junni at avant yonent bi laa wax de junni at lu ko mat avant yonent bi jamono yu amay ibnul xattaab saxaaba yi di wër tasku gañe ko ba pare bi ñu yeggee ñu fekk benn barab ñu ni barab bii kat ak yonent moo fi tëdd bi ñuy wax daaliya kon lu ko junni ak yonent daa nga fa mel nam mel amay ñu xattaab bi ñu ko yëgee dañ leen sulli leen ko ngeen suulaat ko te bu leen koy suul def leen technique ndax nit ñi bu ñu xam buñ ko suul wala ñu fi nekk di ziara yu kon xam gaa yi bàyyi bëgg di ñu gas ay si pax ay pax pax pax yu bari jël benn suul ko ca nax maanaam def ko foofu ndoo xam mën nañ ko suulati su ko defee ziara googu ñi ñi def ak yooyu dootul xalaat kon yu mel nii moom mbir la moo xam ni maaruf lu ñu xam la ci taarix kon amr ibn jamuux nii la faatoo te am ngërmandel suñu borom subhanahu wa taala am ngërmandel yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye bokk ci ñi nga xamante ni yonente bi seedeel na leen àjjana ca ak dundam xam su fekkee am na ay njàngat yu ñu mën a def ci dundu waa ji mooy mbokk yi ndekete ngëm yàlla mën naa def loo nit lu ne ngëm yàlla mën naa mel loo nit lu ne beneen nit mooy nit ki nag ñu ko yàlla yi dal ci wàllu yaramam loolu wër tax mu yoon jox jàpp ni moom yalwaa nag laaj rek la war a féete woo déedéet dafa war a gëm ni moom amal na njëriñ li nga xamante ni moom mooy daaw bi tey du kii rek moo meloon yii ne defe naa yéen a ngi fàttaliku Abdoulaye bin Maktoum dal na xalawoon yéen a ngi fàttaliku ñeneen ñeneen ñoo xam ne ci saxaaba yi kenn ku ci nekk ah julay bii laa gisoon ngeen ko moom it yàlla na koo ko feebar boo xam ne yaram yi kenn mënu koo xool ndax ay picc ci li kenn xamut waaye kenn ku ci nekk daal doo sàggan ba yàlla natt la fii ci àddina dañu xullee ba mu lay sàggan ba ba ba ngay sàggan ba mu lay sàggan sa war xam déedéet moom kay su fekkee natt bi am naa ko fii ci kaw suuf naa fexe sëyee sama bakkan ba keroog àjjana ma am ko moo tax seetlul nag su lay bii ba am ibni jamu ibni maktum gaa yooyu yëpp léegi kenn ku ci nekk rek réalisé na ci dundam loo xam ne am na sa ngërëmal borom doo ko baaxu kon loolu dafay wane ne ngëm yàlla mën naa mel loolu nit mu ne اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين